bilaay teema jóg way fi ngeen jilin seewey ñoo ma jëmmalul boppam soxna jaara soxna jaara soxna moo di dey ba mi desi di feeñaat teeram wa de foofu ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neefi tey duñu beew waaye nga te waaye nga te faral nga te foog nga keluma bi da sellal yow yàlla jox barke soxna jaara bu defan suqat cuune duñu wan ki ñuulu dolle da xëju cim nen soxna jaara la ñuulu mosula julli te jàppul mosula julli te wildul loola kay sangam tuubal daldi wër këram buubal nuy jaayi dëkkandoom nu ji yekk jigéenam soxna te njaayi mbokkam taalan maaram lalaalal sëñ jaabaan sëñ jaabaan rekki ban na jaamam jam sayla jam baatin bambal kami kaadam cog ndeegola jébbal taalan dem rootil donga yi xayu toolam soxna jaara moo sellal donga yamu daarootal seen jeneer ba moo niital